na teg ko sa bànneexu bàkkan bàyyi leen daa bañ wàññi ko nga bañ tey mu rëbb a yaa fi ne tey mu rëbb yaa fi ne tey mu rëbb yaa fi ne tey sax te fal li dal sa xel kilifa yépp wax ba tey nga bañ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 moo lay ñaqloo ni xam nga day wàcc coow est ce que xam nga dama yàqamte nga ay hmm. sa ci day nii te sooy teg après ataaya bee si tegu man teg damaa dégg macha allah kenn du man man dama laa nopp ah waaw ah commencé ti nga xam naa la non non non non man yow rek laa koy wax waxuma ko kenn <laughs> ah, waaw baax na ko daa jàpp lu <laughs> waaye waxuma loolu de da hmm. sa ginnaaw da yaa fi tardé scandale boo xam ne bu mel ni jàmm

merci maa ngi jégul ah. non am problème. ma ñëw si kër boo borom ko ko dara kër dara kër ñëpp pour ñu ko jàmm ko non loolu amul benn problème. ça va bien ça va bien. naka yi tey. sant bu baax euh, Christine sa lan. Christine c'est ma sœur sama rakk la. c'est ta sœur. waaw. moom sëñ bi mu nekkee ak Guèye yow sœur yëngu ko exact. est ce que. di dund quoi ak liggéey di def yow yëngu. ah yëngu naa sëy bu te man aw ma leen loo xamante gis naa ko ci moom baax kese la ma woon ak maandu ak yaw yaa ngi ndax man Christine sama la sama yaay sama papa ko ak man man may magam yaa ngi mm-hmm. te sama yaay sama papa ba ñu gaañoo lu war ci dëj bi rek géy moom moo def kon man gisuma ñoom ñaar seen say benn problème wax dëgg yàlla bon yow il faut que ma leeral la nga comprendre mm-hmm. parce que ci xam koy def parce que li muy def sa dina nangu ko sama dina nangu ko parce que n'est-ce pas chrétien nga n'est-ce mm-hmm. musulman la Mouhamed musta accordé fenn fu niroo amee sept jabar sa yoonu diine nangu ko yéen benn da a maandu yaru am ay teggin ku ne xam ne seen yoonu ku ci fi dara mais nan nga mën a toogee di imaginer yow ngay di takk sa jab sa sa mm-hmm. am sept jabar doo ko ci bàyyi. pour man daf la nax comme ni ma naxee quoi. non non naxuma. moom sax au moins wax na li nga xamante ne loolu moom mooy dëgg yaa ngi dégg te mm. man sëñ bi wax dëgg yàlla man ay sept jabaru géy ay huit jabaram man loolu sama yoon nekku xamal lan moo lan laa compté man sama bonheur sœur te wax dëgg yàlla sama rab moom muy sëyal heureuse na ci sëyal man gisuma ci benn problème mm. moom am sept jabar que mu am huit problème moom moo ci nekk sa papa na lay def ci kër gi sa papa de ñëw wëpp fëggal fëggal rab di fëgg dana ne ma naañ ñëw ànd ak moom tas sëy man ko mukk lu ci dal sa papa lan mooy problème mu xanaa daa yëg ni doo doo awo sam papa daa xuma fu mu yëggee juróom ñaari jabari ñëw fi waaw wax lu ko neex nag ne ma damay ànd ak moom dem kër ga waa yow lan mooy sa réaction ay man rek xam nga ni man paaka laa kenn ma jiitu sama bar ma bañ ba tëdd ci suuf sa papa kan wax juróom ñaari jabar nga laa am man damaa xam xam nga dëkk bi fii dara du fi umpi waaye maa ma nekk moom xaw ma damaa rëy laa maa ko tëggal loo xam ne ci kër gi loo xam ne mënu koo feet xoolal jéggi ci kër gi ñëpp ko ñëw mobilisé wu ñu ngi ko dàq ca biti génn ko. man yow mosoo laa ko baa nga xaañu baa nga def choc moo la tax dof yow nii nga. yow lavage de cerveau war nañ la ko defal yow war nga jël sa rak diko jokku tak juroom ñaari jabar te yow sa dina nangu sama dina nangu ko te yow dina buy nangu day nangu lu baax ha ah? yow est ce que yow pap yeen ni yow sey ñu ngi ni yow yow sa yoon nangu ko mais señ bi yow non non lan mo sa yoon ak yow lan nga bokk ak tey yaangi ba wara mëna taxaw fi di wax ay sat jabaram parce que sama doom dafa bok ci ñimu tak dafa ah. ma nax dafa ma fenn ah d'accord. yow ñu fenn la wax la ma ñëw di la jàppale pour ñu bokk ma ne yow xeex bokk combat bi nga ñëw naan ma ay léegi. mais moom fenn ma fenn ma dafa wax dëgg léegi sama rakk moom bu bëggee ni moom loolu arrangé na ko bu moom ci loolu dama koy bàyyi mu ànd ak moom ci loolu oubien le problème ana problème foofu. yow la may kan mooy si sëñ bi Alphonse wala Mbengue xam naa ñëpp ah non da nga may leeral parce que da lay dàq. yow xamoo yow yow yow yow mais yow yow yow mais yow yow doo nit. man combat bi may def dama si woo pour nga jàppale ma ci ngay def lii di wax sa waxi dof yi yéen yéen sama jabar yéen a ko dañoo ragal lool. kon booloo ngeen doon say dàq sa papa. eh defal ndànk nag jikkoy Cees waa lañ ko def dañoo booloo boole suñuy doole àndandoo ju ñëpp dàq ko ci bitti bañ pare nag ku ne indiwaat sa jikko. ah non non non kon naa am waaye xam nga lu may def damay dugg ci néeg bu nekk ni la merci. loolu mom foog ma def ko. mais nak ciow amna ciow la ngi doog a tàmbalee. sa papa kon ni may rebb ni man len la lay conseil xolal su awé gauche awal droite do xam nga ko dafa bari pexé te da sadi. est-ce que du ma jël congé kon. toog ci kër gi. walé bra fék ci kër gi nag. ngeen dafa do wat say dak ko loolu la gis dé waay sa papa bo fa démé ci doxan ba mu tégal ma laser ak pistolet la sa pare. tapet nga nak yow. yow su nii nga nekk nii yow am kër kër gu bi baaxul ah day tax doo réfléchir yow nan ngay mën a jàkkaarloo ak dina ji nga bokk ak ni ngeen yaara bi ngay taxu naan ma ay nit ñi doon war a màngu foofu diggante boobu ma amul moo fi am ban lu sérieux moo fa nekk yow est-ce que nit nga yow eh, nga am ah. xool damam nga bon gi ah yow loolu tudd nga ni man Evelyne laa tudd waaw yow moo la tax a dof ba nga juddoo tudd Evelyne nga dof Evelyne yëpp ñu ma roog fi bëri dén dof la yow pire dof nga. mais moom père yow tàng nga de. non doon parce que man ancien soldat la man damaa rëy nit ba toog di wërgëy pour ñëw pour nga jàpp ci nga may wax sa wax dof yi. mais booy xam nga lan la. non si. li nga wax man yëg naa ko sama sœur nangu na ci ànd ak moom ana problème nga sa combat boobu ak sa xeex man je ne suis pas partante. yaa ngi dégg te xam nga laa bëgg nga jóg nga génn sama kër. Eh. waaw jógal nga génn sama kër. Eh, koy génn kër gi man yow yow xam nga fooy taxawaa. Ah? parce que ku loo xool sa gis nga wéetee nag da yow am ndof ci moom génn ci lii am nga jëkkër xaw ma ko may dund. mon père tu me déranges là tu am sama problème de Christine yow yaa ah? xam nga jëkkër ya seen ñaawaay yi mel nii foo leen fekk ñu mel nii nag ñu dof ñii xaw góor nga xaw ma jigéen te yow naa deux heures ma collègue sur nos études Mon bruit, mais mon père c'est une eh, merde là. mais ça c'est du jamais vu. Hein? Hein? Hein? man la kii damaa yaakaar moom dafa doon wala kii ba muy ñëw fii dafa am lu jël. su tëddee mën na nelaw lu wax ci neex a neex mën na xëy soppeeku hmm, bàyyi ci xel sama maam daana wax naa ne ku judd ci tàgg. ak sa jëkkër sa jëkkër dafa dee. waaye yow tamit ba nga fii ñëw waroon nga maa tàggu samay nawle laa fi nekkal. xam nga yow lu ma lay yëgal damaa bëgg nga xam ne lu fanaan yellu Sénégal fanaan Mauritanie. dara lu mënoo fi def dara luy umpe. dara mënu fee umpe nag. loo fi def yëg naa ko. yow am nga looy def lu dem séy koo xamante ni satti jabar la am satti jabar yow foofu loo fay def xanaa xooloo sa bopp xoolal li nga mel. bari bëggoon Mauritanie ñoom Ahmed Babou ñu ngi fa bëgg la bëgg a dee ñu fas yéene defal la ko nga bàyyi fa yépp ñëw sëy ku am setti jabar loolu baax na. gis nga yaay sama jëkkër laa bëgg te gis nga lii ma def nii réccu ma ci dara nag te si c'était à refaire dama koy defar réccu ma ci dara moom laa bëgg te moom laay sëyal. waykat bi waykat bi way na way na bi waykat bi way yang balo wena wake up be wake up be wena ya. Yep. Terus dan matin na ka. Dan matin. yaakaaroon naa ne lii nga ma def sama beneen doom moo ma koy def ba mu des yow ndax Rose dama laa jur jël sama doom yëpp teg la si kaw ñëpp ne dama lay gënale ak sama yeneen doom yi ndax bëgg bëgg dafa woon diir bu day bi mu ñëwee Casamance bëgg ku fat damaa bañ sama nopp yaay ko yaay ko yaay jàppale ko bëgg la neex tax ma top say wax ba def li nga wax mo am sept jabar mo am vingt jabar la yamale mom la bëgg mom lay seyer te gis nga yow horaire bi la indi du la fi bay legi ngay delu mauritani legi fi ma toog du ma fi jóge tank sa jëkkër ñëwul fekk ma fi ma xam moy kan tas sëy bi lay def tas netali woo ma ko yaay sama sëy bi tasuma ci ben yoon sama jëkkër la bëgg te supporteel naa ko ay jabaram waaw fi lay sëy tay ba suba yow léegi ngay ñibbi léegi léegi léegi fi do fi toog toog dama yàqal sa maaleykum salam. waaw kay biri ma sama yaay la defe woon naa ne amoo xol di ma man sa yaay dem dir bu day nii xaw ci loo nekk waa jour bi dem la rose ak ni nga mel ci sama xol doon nga ma ba si kanam si fii Thiès di la di la woo Rose mënumaa fexe ba nga jël ma te ma nga xam ni nga mel man ya nga ni mel sama korong nga kamu ko nga meni, man nii loolu Rose motor. nga mais na nga def ni ye an bala ka jam ni ye a fala Je suis un peu plus sama jëkkër sama xaritu jëkkër te gis sama yaay dafay ñëw sama sëy tas lan tas sëy bi waaw non mais lu tax ngay tas sëy Je suis un peu plus yow kii sa sax. sama yaay la wax naa. xoolal yow xoolal bu dul woon yaam dama lay génne kër gi léegi ah nga def ak sa parabis yi nga takk. yow eh Birima du yor nga vingt cinq mille. waaw ànd ko léegi moom horaire bi da ko fi bàyyi day dellu. waaw na dem léegi moom léegi lay def ànd ko ci kër yi quoi. Rose dugal nga dem. bëggatuma la gis. bala nga ma amee sama xol bi li ci nekk yëpp lu ma la ci tegalaan moom dal déglu nga may wax jugal dem sa yoon. 对吗？ mbadu abarika demba kunandi abarika ni wali nyuma soho mani wula dembe dembe jakhasi toro ni wali nyuma dembe dembe jakhasi toro toro ni eh yow ngay def fi waxoon naa la bu ma ayee sama territoire bu fa taxawal yow bi man lan laa fi man lan laa fi deug du seetaan. loolu sama yo nekku ci waxoon naa la wuyu bànday baayam. da ngay jay seytaane di nga xamni man ma la gëna waabu ji te bo gisé ni ma fanano yow ci neeg nga xamni ne na ci yow xam la la bu nga jung nga abal ma sama la raaj. sa ñaraaj ci leneen lu dul xana xam mo wuyu bànday bayam gawal

Ajoda matigi nyumanana Abali kalale malu Abali kalale malu Kundiye Balakaja Kundiye Mafalaka jamu obi ani sini tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye eh, eh, eh, na ko di ee na ee nananana ko di ee fakuru kuma bɛɛ na fɔ kuma bɛɛ ɲaga na fɔ kuma bɛɛ na fɔ uma benya hamina fo Oh